tey ëllëg di ñaanal xalifatul amma di taifatul muridiya sëriñ Muntaxal yàlla suñu borom subhanahu wa guddal aw fanam kameeru ay këram di ko ñaanale noonu sëriñ Cheikh Jëmb di ko ñaanal mboolem jabootu sëriñ Touba bi ak Cheikh Ibra di ko ñaanal itam mboolem xulafaa yi nekk ci Sénégal mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm di jiital nuyoo bi itam ci suñu sang si nga xamante ni ñoo jóge capital ndax liggéeyu sëriñ bi moom ku ci doon sa jëwriñ rek sa sang la ñu ngi leen di dalal di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di ziar bu baax a baax jëwriñ Bamba ak maam Thierno. ak mboolem ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di màggal di leen jox seen wàccuwaay bu loolu weesoo itam bi ñu commencé ñu ngi gërëm suñu mbokku taalibe yi nga xamante ni jàng nañ fi xasida njàng mu am solo am solo am solo te xasida yooyu bokk ci li nga xamante ni mooy liggéeyu ku tedd gi te wax dëgg yàlla mu ñuy gëmloo ne li sëñ Tuubaa waxoon ne sama liggéey bii tànki kanam la am amul tànki ginnaaw lii firndeel na na ko ndax daaw bu ngeen fiy ñëw kuréel gi amu fi woon te leen am na ñu ngi leen di ñaanal yéen ñi nga xamante ni yéen jàng euh, xasida yi kuréel gi wax dëgg yàlla àgg fu kawe seen njot te ngeen sax ci xasida yi te jàpp ci ndax bokk na ci liggéey yi nga xamante ni moo gën a am solo te was tuwasilu ahlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abqaaka ma naan loolu la ku tedd ki sëriñ Tuubaa wax nee na sama yi de yii de muy sama mbind mii day àggale jaam bi ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala te du soxla muy dugg xalwa wala muy def genn ibaadaat ni yàlla ni mu desale noonu la oomale kon nag ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci loolu bu loolu weesoo ñi ngi sant itam jëwriñ sëriñ jaxate ak sëñ Modou Ndour ak Bachir ndax wax dëgg yàlla ñoom it dëggal nañ li nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ni sama liggéey bii tànk kanam la am waaye amul tànk ginnaaw li koy dëggal mooy bi weer wi teroo ba léegi bis bu sedd nañ ci wàcc kaamilu alxuraan fii ci José Pass te loolu musu musu fi am te liggéeyu alxuraan boobu bokk li bokk ci li gën a am solo ci màggal gi ndax sëriñ Touba ku nekk xamoon na kóllëre gi mu am ak alxuraan ndax dafa def alxuraan lu nga xamante ne kenn defu ko alxuraan daf daan jël alxuraan teg ko ci kaw lal toog ci suuf naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xabla kunta tabibi mu ni téerab yàlla bi day yaay sama xaxat xarit di sama soppe balaa ngay nekk sama ab docteur Sëriñ Tuubaa wax ne kitaabun bihi narjoo min allahi rahmatan narjoo min allahi rahmatan waran joo bihi dunya wa uxra min alkarbi mu ne téerab yàlla bii ñun ñii ci lañ mucc ci lañ yaakaar itam mu fegal ñu lépp luy ay pakk pakk àdduna ak àllaaxira te alxuraan jooju itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloo nit ñi di ko jàngal moo nañu iqra'u alqur'ana fa innahu yaxti yowma alxiyamati safian li ashaabihi jàng leen alqur'an nag alqur'an yowma alxiyam dafay ñëw di ramm ki ko doon jàng kon jëwri ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal barke alqur'an boobu dal seen kaw ndax wax dëgg yàlla alxuraan dafa nekk mbir mu nga xamante ni mbir mu doy waar la ndax yàlla bi nga xamante ni moo wàcc alxuraan ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni law anzalna haadihi alquran ala la raaytuhu xaasixan mutasabihan min xashyati illahi wa tilka al amsaalu nadribuha na laallakum yatafakkaruun daf ni alxuraan ji de dama ko wàcce ci bopp nit loolu dafa ne alxuraan ji su ma ko wàcce woon ci montagne ñu gën a kawe ci bi day màbb ndax màgg gu alxuraan màgg ma def ko mu mën a dugg ci bopp doomu aadama la la'allakum tatafakkarun ndax nit ñi di mën a fàttaliku seen borom li ab sàcc bañ la yàlla bëgg muy ku ko yëg gaañ nañ leen yëg yàlla suñu waxtu yii ñu am nañ leen ci jox yàlla li nga xamante ni moom la moom nañ ci jaamu yàlla di ci jàng alxuraan alxuraan dafa wax ne jàngale alxuraan sax wala ngeen jàng ci li gën a yomb kon góorgóorlu leen ci loolu bu baax a baax a baax bu loolu weesoo ñu amee ak cant ak ak ngërëm bu nga xamante ni mi ngi jóge ci bépp murit wala bépp Baay Faal jëm ci suñu mbokku tijaan yi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo bokk dëkk bi te ñu dégg li suñu borom wax ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ñu ngi leen ci sant di leen gën gërëm bu ñu tuddee jëwriñ Baay Ibra dafa mel ni tudd nañ leen di sant itam suñu mbokku xaadir yi di sant itam suñu mbokku laay yi ndax ñun ak ñoom dañoo bokk lu ñu séddoo muy alquran al karim kaabatullahi wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te suñu borom subhanahu wa taala dégg ñu ne waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci bu mu yàlla gi te bu leen bu mu yàlla gi nag bu ci jàpp ji jàpp ji fañ jëm ëllëg ñoo fay daje insha allah suñu borom mi ñu bind itam dégg ñu ñun ñu nekk ci kaw ci suñ ay diggante. mu nañu wa taawanu ala albirri wa a wala taawanu ala al ismi wal udwan wa maxsiyati rasul daf ñoo sant ñu dimbalante ci suñu biir waaye bu ne nag nañ dimbale ci ak mbaax nañ dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla waaye bu ñu dimbalante te mukk ci bàkkaar ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonent bi mooy mooy yàlla ndax ku topp yàlla topp mooy yonent bi ma am lu may sàkku di ko ñaan suñu mbokku jullit ñi nga xamante ni ñoo fi nekk muy ak rafetal ak rafetal di jëpp suñu diggante ku ko sàmmal ormal benn jullit mi ngi mel ne tabax nga jàkka waaye itam képp ku nga xamante ni war nga war ma benn jullit mi ngi mel ne da ngaa toj jàkka nañuy gën a suturalante gën a sàmmante gën a joxante cër ndax dañuy wax na yomal xiyaam kat nit dana taxaw sawara yay ko waaye ci loolu ñu ne ko bëgg bëgg ne ko dugal aljana mu laaj sama borom laka lan laa def ba ma dugal aljana mu ne ko ci suuf daa suturaaloon sama benn jaam moo tax tey jii ma suturaal la kon nañ jàppante te bëggante ngir jëmmi yàlla ji rek tax ndax yonent bi wax nañu ne suñu ngëm du mat mukk ndaree li li nga yéene sa moroom jullit bu loolu weesoo nag taxawaay bi tey dafa am lu ko waral li ko waral mooy dañoo jëm ci màggal màggal nekk lu am solo ndax mooy benn mbir rek mu nga xamante ne ci la sëñ Tuubaa masa ñaan ndir ndimbal yëf yi li doon métti métti métti sëñ bi li mu waxoon mooy sëñ waxoon mooy ndimbal moom yaakaaruma ko yaakaaruma ci yaakaaruma ko ci kenn ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon nag bu demee ba wooñu nañu kat kaay leen sant le ma yàlla sama borom kon nag bépp taalibe bépp jullit war na cee mën a def lu mu mën wax dëgg yàlla ndax bis bi dafa am na ko waral. li ko waral mooy sëñ bi wax na ni xarat yowmal sappi saa bi lansar li xidmatil muxtaar fii sëhri safar sëñ bi nee na génn naa fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéey liñ jor màkk sallallahu alayhi waaye génn googu dafa am lu ko loo tax mu génn moo tax mu ne sababu xaybati an allaha araada an anaalu min hujjaaha wa an akuna safian li xaw mi wa an akuna xaatiman fi daw mi mu ne sama génn gi li ko war mooy yàlla sama borom subhanahu wa taala dafa am ci ay daraja waaye itam dafa naw ma nekk ku nga xamante ni damaa war a ràmm sama nit waaye dafa nekk it lu nga xamante ni itam damaa war a liggéeyal njool màkk sama sang bi ci taw mi sëñ Tuubaa nag yàlla daf koo may ndax daf ne malakanil malik wal malik wal maliku la siy loxo tamliku loolu nag wax ju naqaree dëgg la ndax sëriñ bi yàlla daf koo may ci nguuram gi mu di ci def di ci dindi misaal bi mooy ci àdduna procuration bu ma la ko defalee sama compte bancaire da nga ciy sañ jënd di ci sañ a def loo neex yàlla da ko defal procuration ci nguuram gi moo tax sëñ bi sañ a wax ni inna wasina saarahum fii xidmati lahumu diyaaru wastal jinaani maqada sëriñ bi nee na yéen ñu koy liggéeyal aljana du ngeen dëkk ca pegg ya du ngeen dëkk ca wet ya ci digg ba ngeen di dëkk te da ngeen fay sax jërëjëf sëñ Touba ndax sëriñ Touba moom kat ku yebbu jéem ku yabu jéem koo liggéeyal mu ngi bégal ca Moustapha te Moustapha ci xasidaam suma jant ak yow daam jiitu ne dunya kunta xadimuna inda rabbiha fa nga nu jëlee gën fa nga nu jëlee saa yi bu sefina ay Mbakke ni la taale jërëjëf Serigne Touba cey Ahmadou lan moo tax ñu war a bëgg sëñ bi mooy sëñ bi moom dara da koo naqariwu ndax li tax dara naqariwu ko mooy lan daf ni faraani l akramu tafiyan yadumu bi annani xilun wa ibun wa xadimu Sëñ Tuubaa nee na yàlla bi nga xamante ne mooy aji màgg moo xam na ni moom ab xarit la te ab soppe la te liggéey liggéeykatu njool màkk la sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa nag lim ñu dig te teg ci suñu bët lam ñu dig te gisaguñ ko lañ gën a gëm mbokk yi maa ngi leen di di soññ sama bopp ci liggéeyu ku tedd ki Sëriñ Tuubaa ñemewul bor dafa am fay ku ko lebal ker mu fay la guddi ku ko defal loo man mu defal la loo mënul ku ko defal loo mënul mu fay la lu la jomb sëriñ bi nee na yasir lahum bi kii la si fa kullu maa yasartuhu tayassara Sëriñ Tuubaa nee na yow yàlla yombalal ñii li jafe ci ñoom ndax yow yow lépp loo yombal mu yomb moo tax Cheikh Ibrahima Fall sama sëriñ sama yaakaar daf ne woon a ah, doom kaay leen jàpp fi liggéeyu seen mbàq bi ndax bëri la ci mbàttat bu ci tegee seen loxo mu dem bu ngeen ci tegul seen loxo itam mu dem te ngeen cee teg seen loxo muy dem mu mel ni yéen a koy doxal bu ëllëgee ngeen sa sag bi Sëriñ Touba dafa wax wax ñu yéeme daf ni rafaxani raafixu fawxal kurama bi ci xaarit bi mun naa lam ta tarima na yàlla bi nga xamante ni mooy kat mooy aji yéeg ji nee na na ko teg ko ci kaw góor yàlla yëpp te nee na mosu koo ndamoo diiru ak nekkam wax ji nag <laughs> duñ ko mën a guddal ndax xam nañ ni waxtu wi xat na am nga 10 minutes am nga 10 minutes. ba baal kii rek. am nga 10 kon mi ngi noonu nañ góorgóorlu rek. ci liggéeyal sëñ góor góorlu ci jaamu yàlla góor góorgóorlu ci dimbalante ci suñ biir góor góorlu ci xasida góor góorgóorlu ci góor góorlu ci li nga xamante ni moom lañu yàlla euh, digal wa maa ataakum rasulu fa xuusuhu wa maa nahaakum anhu fa antahoo li nga xamante ni moom la ñu yonent bi andil nañ ko jàpp waaye li muy terekat nañ ko bàyyi mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ñu ah ñu teewee ko ay déwén déwén te bu ñu fi teewee mu gën a kéemaane nii mu demee nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu jox jëwriñ Moustapha kàddu gi